ñu jël les devants ñu teg un plan B en l'occurrence Bassirou Diomaye Faye Bassirou dans son séjour carcéral pour offense euh, à la à la à la à la justice ñu ñu associé ko ci dossier wu euh, Ousmane Sonko il est en en en en en détention après il y a tout un débat euh, est-ce que en prenant la fiche est-ce qu'il a pris la fiche en tant que candidat indépendant euh, on évoque l'article Euh, huit cent huit cent huit cent huit cent vingt et un euh, pour dire que euh, ku bokk ci ci parti dissous mënuloo présenté wu à une à une élection mu mel ni la candidature de Bassirou Diomaye aussi risque d'échouer dafa mel ni ci ci acte yi ñuy posé la candidature oui la candidature de Bassirou Diomaye Faye Euh, boo dem damay ragal ba ci bu ñu demee ba ci cëppaandaw la tamit voilà par un imbroglio euh, ju politico judiciaire ñu ne le candidat est est est est écarté. ma ne man xam nga may mun ne dama la dama la renvoyé ci postulat débat bi ma wax moo di man aucune autre candidature ne m'intéresse en dehors de celle de Amadou Ba. mais dama bëgg a wax nii. mais xam nga la nga xam nga la nga waxtaan est-ce que candidature boobu déglu ma ma may ma ma aussi. candidature bi ngay wax noonu benn juge moo ko am le 11 décembre ku bëgg a dem déposer sa candidature da nga dem déposer foofu ak le 10 janvier conseil constitutionnel dana càmbar candidature yëpp xool bu ci méngoo ak suñuy texte délibéré ne lii ñii laa nangu ni respecté nañ yoonu Sénégal kon man damay tënk ci loolu. ñii laa nangu ne man man nekkuma. respecté nañu yoonu Sénégal. voilà yoon mooy loi et règlement de ce pays. man tënk man du ma analyste man ci un acteur politique respectueux des institutions de la République dama ne la képp ku man toppatoo ma kan mooy nekk plan C plan D plan ñun suñu plan am nañu ko mooy Amadou Ba naka la ñuy def ba suñu candidature ñu présenté ko ci ni anam ñu gën a rafetee bu ñu war a déposé ñu déposé ko ci anam ñu gën a rafetee ñu accompagner ko ba conseil constitutionnel nangul ñu ko loolu doy nañu liggéey ñoom itam ku ci bëgg a présenter da présenter. y' a 206 candidats non. ma ne y' a 206 candidats d' accord. bon apparemment ëpp na loolu sax. y' a 206 y' a deux y' avait 246 candidats. voilà mais tey ji tey yéen candidature bi nga xam ne. moom moo leen di inquiété. waaye doo may mën a nag. si may a man ma inquiété man. candidature bi leen di inquiété. c'est la c'est le candidat de Pastef. attendez may mën a may ma ne. non may mën a bi dafa ut seen l'opposition l'opposition est en train de ma ne inquiétude bi ngeen am ci candidature Pastef la non may mën a mais inquiétude en quoi. tu sais inquiétude c'est quoi <laughs> nit ba ngay inquiété day fekk ni nga xool sa baas nga gis lu fa la dafa jaaxal xam nga man ci liñ ma dénk jàpp naa ni aw ma dara lu muy ragal lu dul yàlla ci liñ ma dénk ci liñ ma dénk aw ma dara lu ma ragal lu dul yàlla kon man toppatoo ma li ñeneen yi di def. ci seen man li may toppatoo parce que aux élections li may toppatoo mooy xam naa ne tey fichier bi xam naa ne tey fichier bi ils ont fait une poussée aux xam naa ne fichier électoral bi 7 millions et quelques moo fa nekk su ma waree gagné. lu néew néew néew war naa am 2 millions cent électeurs te loolu nag war pour gagner au premier tour si loolu la ñuy nekk tous les jours di def suñuy calcul di wax di Kaffrine am nañ fa temps Thiès am nañ fa temps Dakar am nañ fa temps di dajale di xool naka lay lépp di matee jour élection ñëpp dem wote tey ci parrainage am nañ yaakaar ni li nga xam ni laaj nañu ko pour ñu gagner premier tour danañ ko matee loolu mooy suñu liggéey. kon man du ma toppatoo keneen est-ce que nekk na candidat kii mooy <laughs> plan sew diw loolu su ma nekkul <laughs>